tabaski gay moolum géej o xaaj ibrahim gay tabaski renam gile lu mu waajaloon la waaye cat eh, daa sew ne meles coronavirus moo buux lu ci géttam ba dugg fa contaminé ay xaram o xaaj ibrahim benn dese bi mu am mooy kuy mu mag ma loolu tàqali kookook sagoom o DG naka mu daanoo démb lañ ko tëralati ca urgence ak farluk docteur yi xaaj ibrahim delluwaat nag sagoom ODG guddi gi yëpp daf ko déconné perfusion yi ñu ko sampaloon lépp mu daggate ko nee na xaram wi du ko jiitu day xaru eh, dooga nag fecc kóllëre dafa araam <laughs> ay at ngi nii man ak xaram lu ma am jënd ngooñ ripaas rakkal kooraay <laughs> korona ñoo rey sa buuxum la <laughs> o oh, gay morom géej tàmbale na di caalit docteur yi sonn nañu ci moom Haj Ibrahim am gaañ ñi nax naxal DG te tëj ranko ñi di wal rek mel na ku nekk ci dëj yàlla ko yàlla yërëm <laughs> ku baaxoon la ku ma miinoon la ak amoon kersa léegi yàlla xare àjjana <laughs> o Haaj Ibrahim Gaye docteur yi tàmbali di jaxle ci moom jàpp ne seen malade bile am na lu koy yoot ñu impliqué yeneen médecin ci paju gi waa dalal xel tàmbali nañu di dalal xelam DG di wàccee tempérament gaa ñi jox ko information directeur résultat yi mujjee génn sa juróom-ñaari xar ñoo ngi am tan bu baax mbote mi sax na te résultat bu am solo la benn fan mu am géri loolu ndam la <laughs> te yeneen quarantaine benn amu ci doomu jàngoro ji santal yàlla yàlla yaana DG <laughs> Eh, yooyu tamit ku yaa nga jërëjëf mën naa leen seeta ji docteur bi ah foofu dañoo interdit ku fa ne mais information ba soxla rek naa la ci gunge sama waay nga <laughs> DG jërëjëf o oh, Haaj Ibrahim nax nanu ko ànd ak loolu mbëggee la foor mu kuyam ba lu yàgg la DG génn l'hôpital jubal rajo ba muy dugg rek ah, gaañi di ko masaw DG garaaw garaaw sig leen seen wàll yàlla na ko yàlla yërëm te xarak àjjana dem leen liggéey dem leen liggéey am problème o oh, DG naka mu dugg whatsapp groupe alfaida tombek euh, Cheikh sar ak ay publication naka mu rek am situation du jour pour région bu kawlak DG di lox <laughs> ce 22 juillet 2020 18 prélèvements reçus dont 5 positifs il s'agit 5 cas contacts dans le district des moutons de kawlak 4 <laughs> décès <laughs> enregistrés akabotoki o deje yenotina dalleya kirisba dikketina danotina teretina hôpital régional bu diwano kaolak massa